P-A am na demb de dogal ya wàcc na démb ubil 24 heures yéene kaay nañu lu jëm nag ci wàllum accident yu bari yi lée waaw Bassirou day son excellence nee na kaaraange la sécurité dëgg la président de la république day ba soy nee bëgg na benn plan boo xam ne daar daar urgence ngir ñu fàggandiku prévention ca kaaraange ga sécurité bu mu am jéggale de mooy rigueur ci nu gën a gaawee meilleur délai yéene kaay gi ne Alaaji Malick Ndiaye day ministre tali ak avion ak oto waaw la république daal def nag audit agence nationale de la sécurité routière ANASER waaw les éco yéen a kaay ne lu jëm ci wàllum dem ngeeg dikk googee waaw joomaay bëtam day ci Dakar dem dikk la ko teg la ak ca BRT bi parce que son excellence day ca conseil des ministres ba daal dinay sàkku nag ñu daal di auditer dem ngeeg dikk gi la fa xew parc de bus ba ak ressources humaines nit ña fay liggéey waaw maanaam ci kaw gàttal daal Dakar dem dikk ba suru joomaay jaaxeer fay nee na nañ leen ko auditer gouvernance globale nag ci wàllum lancement effectif activité BRT bi lée ak yorin nga ak exploitation ñëw le mandat yéen kaa ne wàllum autorail di train grand train du Sénégal waaw GTS SA Samba Ndiaye day yorinam gi ne baaxul dafa am kon ay gàkk-gàkk waaw Ndiaye jaataa ngay setal de tribune yéen kaa ne ginnaaw publication rapport d'audit yi lée waaw waa opération gox bi kañ la kañ la di génnee suñu xaalis ana xaalis bi Seydi Gassama ci 24 heures waaw ma nga yëngal yéenekaay ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali ndaataa talax gu ndaa ndaat noos yorinu alalu askan wi waaw ak wàllum suuf xanaa xamoo leen ne ministre finance waaw am na ci part de responsabilité bu rëy aha waaw waaw parce que nag patron direct direction du budget et des impôts et domaines dëgg la nañu caxat-caxatee ak seddoo wàllum suuf si ni mu garaawee te jaarale wuñ ko yoon lépp war a leer nañ bas day bëggul lëndëm nay leer rek la wax source aané fort waaw nañ leen tëj rapport yu concours des comptes yëpp te dem ca mairie bu Kédougou bële mar di Italie waaw dama ne la Mamadou Aji Cissé yorinam nga doy na waar jënd ay mbuusu ndox ay gurtu ndox gaa yi naan ci ndaje mi mairie bi di organiser rek daanaka fukki millions ak juróom laa la wax quinze millions la ilaha illallah waaw loolu xanaa ndoxu sam-sam la ma ne la nga xam ne dañ koo war a jox nag néew ji doole yaa waaw gouvernance ba préfecture ba commissaire de police ba ak membre conseil municipal ba waaw ñoom lañ ko mujj jox de daanaka maar de Italie foofu moom comptable des matières dafa amul sax pour bu dara di dug ak di génn nii non non non yéen kaay daaw da càmmi ne agence de construction des bâtiments et des services publics waaw ACBEP ah yorin nga tamit doy na waar génn xeetu doy xam ne day ëpp na ñaañu recruter day stagiaire la kër gay yëngu ak seen formation daa laalewul daara chef de la division du matériel et de la logistique ak chef de la division des projets et le chef de la division des marchés waaw agent de même catégorie de waaw gars yi de ay salaire u un million vingt trois cent un cinq cent moom la gars yi di laal de enquête yéene kaay ne gis nga wàllum njuñ ñàcc wàllum suuf goo gée Gandigal maire ba day Thierno Diagne enquêteurs yi daal ne nañ koy daaneelati de mar day taat Thierno Diagne mi lée waa of nag daaneeloon nañ ko dee ngir wàllu sàcc alalu askan wi lée lu ëpp cinquante millions ilaha illallah ñu daal di koy denc ci kaso bi la 14 mars 2022 la ngir faux et usage de faux ci benn document administratif waaw wàllum escroquerie foncière njuuj njaaj ci wàllum suuf ba léegi ni le koppar koy toppati de ak fondation Sonatel wàllum njuuj njaaj xaalis ba 1 milliard 700 allahu akbar yéeni kaa gi ne askan wa day nee na suul seenu néew fa ñu jëloon ngir suul fa seeni néew dama ne ñàkk ko yéeni kaa yi sëñ Saliou Gueye gi Caser la bamboula de Baba Baba Diallo Baba Ndiaye moo moom digg Ndakaar Baba Diallo DG ba day laal na quarante cinq millions la ilaha illallah maanaam at bu ne mu laal quinze millions ca treizième mois mu violé yoon waaw ay ndàmpaayam dix-sept boo dajalee lépp kay fukki ndàmpaay ak juróom-ñaar muy trente millions neuf cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-un la ilaha illallah président conseil d'administration ba moom ay ndàmpaayam weer wu dee wu ne waaw mu laal ñeenti millions ay waay lii lan la libération yéene ne lii lan la rapport cour des comptes ba commission de supervision opérateurs yi neexal leen ay ministre laal nañ ci jiwu gi ay député laal nañ ci jiwu gi ay kilifa diine laal nañ ci jiwu gi ay membre o conseil laal nañ ci jiwu gi ak ñeneen ak ñeneen sax la mafia des semences cerné war nañ leen dombal dama ne la jiwu gerte gi lée nga xam ne dañ koo subventionné ay ministre lañ koy jox laa la wax ay député ay au conseil des collectivités territoriales ay kilifa diine ci amul benn justification laa la wax ay opérateur privé soppeeku laa lay wax nii def seen bopp ay GIE établissement ay société prête ay coopérative ngir mën a jot kon ay quota yoo xam ne day amul appel d'offre amul dara Cheikh Bara nga ca biir bi UNOPS waaw yéen kaay gi ne tey ma nettali leen nag membre commission supervision boobee ak contrôle waaw nan la leen opérateur privé di jëndee laa la wax allahu akbar koppar gi nga xam ne kon moom lañ ci def ci subvention bi waaw détournement d'objectif dafay am toll na ci un milliard cent soixante neuf millions allahu akbar compte bancaire programme équipement monde rural boobee waaw génnee nañ fa un milliard ngir arrosé rek benn opérateur eh waay samba le code des la ñu caxat-caxat tee ngir def lu dul dëgg ci wàllum jiw gi nga xam ne tax yi da koy bañ yéene kaay Cheikh gi ne xoolal ma président charge su jalis bi le waaw trois milliards yoo xam ne kon moom la ñuy surfacturé at bu nekk allahu akbar ay chef de service ak ay directeur opito publics yi le waaw ñooy soppee ko nekk ay courtier ngir société Nipro ak Fresenius xoolal centre ICP ba administrateur italien ba daa mujj ñibbi kon dëkkam jël yorin nga dénk ko jardinier am ki ko doon yaa garab yaak yooyee waaw ak mbindaan ba mbàyyi woon ca kër ga moo tax it am na ñaar ñoo xam ne nañu dee day day na xel de dañuy def jalis day ndem si yàlla Hamidou Diallo mi leen doon xeexal waaw mais ñëpp déggoon nañ mbir mi jalis yi moom ko deful da ngay faatu te xoolal ma surfacturation ba rek doon jëndee kit bi kon quarante mille francs benn bi kese te pourtant huit mil dong la doon jar soo xaymaa lépp quatre milliards allahu akbar ci at bu ne wàllum surfacturation les éco yéene kaay ne waaye waa Carrefour day médical mën ca tuumaal waaw weddi nañ ko kon ba tëdd ca suuf critique yéene kaay ne sës nañ nag yóbbu tribunal wala yóbbu ca kaso ba wàllum reddition des comptes yi lé waaw naa nekk demande sociale de ay waay yéen ñin tuumaal accusé levez-vous benn jàppale du fi am laa la wax waaye itam làq doom dóor doom it du fi am nguuru jomaay sonko mi lé am nañu occasion ngir dind bi nag la fi nekkoon laa lay wax nii ngi setal seen bopp bopp rek surcote yéene moo ne suuf si nga xam ne dañ koo jaxataxatee ci Ndakaaru ak Cees Mbuur waaw ci waa OFNAC day doon nañu yëglu de OFNAC doon nañu wax de direct news ne délinquance foncière waaw président Diomaye day daal dinañ sulli nag la doon miti nan la ab citoyen Cees waa ku tojul fenn am lu tolloog 13 hectares ca jamono joo xam ne yow mairie ba ca boppam ñetti hectares rek lañ ko jox maanaam par parcelles punkal yi nekkoon ci nguuru Macky Sall ga day ba de ñenn am 3 hectares ñenn ñi 5 hectares ñenn ñi dix hectares ñenn ñi trente hectares ñenn ñi cinquante hectares la ilaha illallah am na ci kenn koo xam ne sax deux cent hectares la am la la wax la ilaha illallah Dakar Times de waa Sonko ana suñu vingt neuf milliards product yàq yéena kaay yi muut baan bi ne magistrat yi nekk ca cour des comptes day waaw dañoo weddi kon premier ministre bi la tey te Sonko ne woon yor na preuve ya Walfadjri ne seetal xaalis boo xam ne bu salte la day loo ëpp ñaari téeméeri milliards ci wàllum drogue bi ah lañ setal dugal ko ci wàllum tabaxu xumkari immobilier maar day taal laaste Ousmane Sonko day ca conseil des ministres démb ba waaw daal dinay wax faratam yi de moom premier ministre nee na dund gu seer gi la indi tam ay coppite ci wàllu lemp bi campagne mbéyu ren gi campagne agricole waaw ak programme cent mille logements yi ñof réew mi quotidien ne jomaay sonko waaw sonko jomaay waaw placé nañu seeni ni de maître Ngagne Demba Touré day yóbbu nañ ko SOMISEL ARTP Dakar Dem Dikk kudd COSEC SONESAR CFS PDS SA ak FONSIS waaw na ñu ay njiit de les fa yéene kaa ne président Bassirou Diomaye Faye day waaw ma nga continuer faxas njabootu Macky Sall ga de démaquillage waaye déet waay akay ah, yéene kaa gi ne ne parce que Abdoulaye Diouf Sarr daanu na Abdou Karim Sall daanu na daanu na Abdoulaye Diop daanu na Ousmane Sylla daanu na Nafissatou Diouf daanu na ca conseil des ministres ba day waaw waaw Pastef ñu ngi leen di jox fromage yi de Abbas Sall ci la téemoo yéene kaay waaw nee na gis nga Ousmane Sonko Sonko Diomaye waaw dañuy motalante ngir intérêt réew mi lé moom président tribune yéene kaay nee na ma nga jëm nag Medina Gounass Dakar tey jilee ci ajuma ji laas ne coowal suuf ca village bi di Njéemaan ca ngeeñeen beneen ndengaleer a ngi xeeñ de maar day taali maar day taali coowal suuf si tam doy na waar <laughs> waaye coowal suuf si dee lu mu doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar nañ xam ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que sonkoy jomaay te jomaay sonko boo paree ma ne la alaaji tëjal